Baba Show ሱባኸች የለስቦረች ነው ለጋይ actualité on continue gars ñu waxtane li nga xam nak mooy donc li di équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé mi daal di génne liste bu 50 joueurs yi ma leen waxoon ne génne na ko ah, donc euh, lepp ñu fas yéene ko wasaare ànd ci ak yéen leeral leen ko wax ci leen mo ci jëm laata bobu nak waxon na leen ne VAR bi li nga xam nak moy donc fi mu ne saison bi di ñëw dañ ko mëna a seetaan du côté du championnat espagnol manam VAR bi ñepp mëna ñu ko seetaan li arbitre di waxtaan nak ñi nekk ci camion bi mais nak arbitre ñom d'accorduñ ci li ñu mel ba tax na sax ñi nga xam moy ligue mom wa ligue joxé nañ sax droit di nga xam moy donc

ci aussi as nee na Kroos Kedat waaw mooy fi ne ni Kroos fi ne daal moom contrat day waaj jeex mais daal ci ak dirigeant lañ ko bëgg a prolongé waat ba 2025 mille vingt ans ah, bi nga xam ne daal fi ne nii ah, waa Real bëgguñu ko bàyyi waxoon naa ne ko Nuno Espirito Santos mi ngi nii ah, l'ancien entraîneur de Al Ittihad dellu na du côté de la Premier League bi nga xam ne jaar na fa donc moo nar a nekk entraîneur bu yees bu Nottingham Forest bu ñoom Cheikhou Kouyaté ak ñoom Moussa Niakhaté loolu daal la gars yi fi mu ne nii officialisé ngeen gis ko ci natal gi kii nag di Barcola moom nag Paris Saint-Germain xëccoo ko ba jëlee ko Lyon et du côté du Parc moom nag fi ni ne nii gars yi nee nañ ah Ekrem di. journaliste réputé danañ daal janvier bi club yu anglais yu bëri ak yeneen club sax bëgg nañ ko récupérer mais jàppale ne waa Paris saint ñoom fas yéene ñu bàyyi seen pépite bi ndax ñoom dañu bëgg former seen équipe ëllëg Onana bi nga xam ne gars yi dafa raté penalty moom it moom fi mu ne nii waa Barça ñoo ci teg gët waxtaan nañ sax ak entourage am pour daal di koy euh, recruter ngir mën a renforcer seen milieu de terrain mais aussi du côté de li nga xam mooy donc Manchester United également ñu koy euh, xool bu baax a baax di ko xëccoo ñi nga xam ne nag mooy waa Ghana Ghana tamit moom seen préparation yi ñoom wax nañ ci leer ñoom fi mu ne daal euh, finalement Guinée équatoriale li ñuy préparé wu donc Guinée équatoriale li ñuy préparé woo buñ jógee dinañ am sax match amical ñoom ak waa Guinée équatoriale laataa ñu dem ca Côte d'Ivoire lu daal la ñuy fësal ñoom ñu ngi waajal kan bu baax a baax kan bi nga xam ne gars yi waxoon naa leen préliste de 50 à 55 jours yi gars yi ñu ngi koy joxe 50 jours sax ñu ngi koy daal di euh, joxe bu Aliou Cissé nag da ngeen koy wan parce que génn na waa CAF ñoo firndeel yenn équipe yi ñu joxe donc euh, liste bi nag après finalement. le 3 janvier inchallah rabi day doon une liste de 27 joueurs donc le 3 janvier inchallah la ñuy mujj joxe liste bi nee naa leen gaynde yi moom le 9 janvier inchallah rabi la ñuy dem du côté de Yamoussoukro mais ndorteelu préparation bi fii lañ ko defee ci Sénégal liste baa ngi nag Seny Dieng moo nekk ci kaw ngeen gisu Chelsea bi mom ak ñom Edouard ñul ko moom Dogore Mendy ah, du Kalidou Koulibaly ñom Formose mendi ñom ah, Mori entre autres ñom Pape Ousmane Sakho ñi ngi ci Noah Fadiga également ah, mi ngi ci eh, liste bi Youssouf Sabaly Pape Abou Cissé Ousseynou Ba Seydou Sano joueur bi daal Aliou Cissé dugal na leen ci xamuñu nag dafay dugal pour le remplissage xamuñu dafay dugal pour le mais en tout cas dans la tête d'Aliou Cissé 27 yi moom na ma pare sauf surprise sauf su amé blessure ñaan ñu ko donc même joueur dal ko gis nañ aussi Abdourahmane mi ngi ci ay ñoom may mbay mbay ñaaw ak ñoom ñëpp ngi si biir si biir liste bi gars yi léegi nag li des gars yi mooy xoolal ni nan lay mën a fexe ba joueur yi daal ñu mën leen si mën a yóbbu moo tax ñuy daal di wax mais ce que sûr et certain que mooy que jamono ji daal Aliou moom ah, donc am na taxawaay boo xam ne am na ko ci jëm ci li nga xam ne nag mooy donc lii di équipe mu nar yóbbu donc on espère que ne carrément euh, dinañ ci mën a am euh, surprise yéen a gars yi lan moo leen euh, bett ci liste bi wala boog lan ngeen gis ne ab finalement moo war a dem ci kan bi bu leen doon joxe également joueurs yoo xam ne gisoo leen ci liste bi yéen ngeen jàpp ne mën nañ ñàkk surprise bi joxe leen seen xalaat c' est toujours un plaisir gars yi de vous servir ah hein. woy leen di like woy leen di abonné on avance ensemble dans la magie des sportifs yi su baax ci yéen su mën a suñu la yaa ngeen jëf